asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalib bi ñu ngi leen di nuyu ta di leen siyaare te di leen xamal ne nun baaxoo def def nañ ko muy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wu ne sëñ bi dañu yebal ci jumaa ji nu ne nu séentu nuy séentu weer yi buñ ko si buñ koy séentu it buñ ko yéenee ba noppi it dañuy génn ci sow di taatan xibaar yi ak di di séentu yàlla dogal na nag euh, biñ génnee ci jumaa ñu ko yéenee ba noppi ba génn ci buntu jumaa ji bi sow bi mbooloo mu bari ci noonu gis nañ ko ban ban ko gisee it lañ daal di def nan baaxoo def rek muy jokkoo kër sëñ bi Cheikh mun Mountakha yëgal ko ko biñ ko yëgalee mu ne loolu baax na kon nañ yëgle nañ kon weer yu feeñ na kon euh, na ñëpp xam ne weer yu feeñ na te yii ci ngoonu ajjuma ji kon suba ci gaaw bi mooy benn moo doon benn fanu tabaski bi waaw ñu xam ne gaaw mooy benn fanu tabaski kon kon altine mooy bisub tabaski gi ñu xam ko kon nag ñoo ngi ñaan ci dara daraje sëriñ Touba yàlla yàggal fi suñu njiit li bu baax a baax a baax waaw te ñuy te ñuy yëgle ne it maanaam euh, euh, bis bii nu jëm muy tabaski gi ñi ci ñi ko man lañ ko lañ ko digal ñi ko man léegi nag ki nga xam ne mënu ko moom nga xam ne daa daa dem ba mu wër ko ni mënu ko kooko lañuy ñuy sart ci ay gàtt yooyu moom du ca seet dara lu mu am rek euh, jariñoo ko bis bi lay def waaw ñu xam ne daal ki mu ki mu war daal lañ naa léegi bu mel gàtt bu mel nangam ak gàtt bu mel nangam moo ko moom moom la cee def waaye ki nga xam ne dem na ba xam ne mënu ko xam da koy leewaatoo ko def yi rek ngir bañ waa këram bañ a bañ a tabaski kooku moom euh, maanaam wutaluñ ko lu mu war a rey lu mu war a ñu xamee ko noonu bu baax a baax a baax day ñaan yàlla yàlla def jàmm ci réew mi ak la kam sëriñ Abdou Diop imam moo doon jottoo jokkoo yéen fii ci Touba asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu